leen gisaat ndax ndakaaru gi ci la ñuy yëngu bu ko defee programme boobu ñu waxtaanee ko ak sénégalais yi wàcc ci kër yi waxtaan ak ñoom ci jàmm ak ci salaam ndax ñun day waa benn bokk yaakaar li ñu jàpp mooy Sénégal mooy maturité maanaam sunu xel lañ ma sa jiital bu nuy demay élection ba sunu démocratie àddina bi yépp dañ koy waxtaane ñu naw ñu ci lool nag loolu nag ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci politique bi muy ñun ñi fare ca benn Bokk Yaakaar ak ñane ci opposition dañ ci war a bàyyi xel dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax a baax xam ne bu ñu ci yokkul waruñu ko wàññi xale yi it ñu waxtaan ak ñoom ñu xam ne li am solo ci réew mooy jàmm ak stabilité loolu dafa am solo te defe naa ne nag loolu euh, alhamdulilahi rabil alamina ginnaaw yàlla may nañu ba tey ñu jubli ci campagne électorale ba war a jëm ci ay élections jàmm jooju nag na sax ñu woo ci Séné waa Sénégal ah bëgg nag it yow mi nga xam ne yaa ko ci njaboot gi nga ñaanal ñu bu baax njabootu El Hadj Oumar Foutiou Tall nga ñaanal ñu bu baax a baax a baax ah ñaanal suñu list bi. ba ndam li nga xam ne daal yaakaar na ne dinañ ko am te mu yaatu ndax bañ demee élection yàggut nag Thierno ba ñu demee élection yàggut gis nañu ne wax dëgg yàlla ci mois de janvier waa Sénégal may nañ ñu ci li ëpp ëpp ëpp ci dëkk yi ñu jiite ko ndax buñ naan 557 nga jiite ca 480 kooku kon xam nañu ne waa Sénégal bàyyi nañu xel Benno Bokk Yaakaar ndax woteeloon nañu gone it aussi woteel ñu ndax loolu it dafa leer ndax mënoo gagné ab commune te gone yow avons des donc sunu xale yi aussi dañ leen di gën a ñaax ñu wàcc waxtaan ak ndaw ñi waxtaan ak mag ñi def ko ci njekk ak ci teraanga ndax Sénégal dëkku la ñu tegginal wax ji donte duñu bokk lu xalaat ñu wormaal kilifa diine yi Sénégal ñëpp bu nu naan stabilité Sénégal da ngeen ci dugal seen loxo bu baax a baax a baax a baax ak sunu maam yi fi tëdd kon yéen dañ leen war a jox respect bu mat sëkk bu ko defee si liggéey bi nga xam ne ci ngeen mësane ci aar ñu ci ay ñaan ak ci ay conseil ngeen continuer ko def yàlla bàyyi leen fi lu yàgga yàgga yàgg te ngeen ànd ak wér Thierno kon looloo doon kàddu yi euh, ñu ñëw tey tàmbalee fii ci sa ëtt wi ah ni nu ko faral di defee ndax ëtt wi nag man mii miin naa ko ni ko ñu bari fii mi ne eh, saa yu ñu fi tàllalee sunu loxo it ah bu nu demee gis ca ngëneel kon sëriñ bi gën ñoo ñaanal génneel ñu kurus bu gudd gudd bi moom la ñu bëgg bu ko defee ñu am score boo xam ne musunu ko am ñu ngi lay sant bu baax sëñ bi jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu new leen di nuyu nuyu lislaam di leen tatagal seen kër tamit ci ndigalu Thierno Madani parce que ñi fi ñëw ñëpp tamit kër gi na seen kanam macha allah di leen wax bismillah ci turu Thierno ak njabootu njabootam yëpp di rafetlu tamit tànk yi ngeen dox tamit ci bés bi nga xam ne bu rëy la ci wàllu diine donc euh, di ñaan tamit euh, li ngeen li ngeen di mbëbët yëpp yàlla na ko yàlla sottil tamit ci jàmm ndax euh, jàmm mooy lépp waaw lislaam ci boppam jàmm la lislaam jàmm rek lay woote tamit incha allah élection nag il faut mu am ci dëkk waaw bu amee nag ku yàlla may nga xam ne yàlla may na la ku yàlla mayul tamit nga topp ci ñi nga xam ne yàlla may na leen waa di kontaan bu baax ci délégation bi ndax tey bésu iid la jaaxle woon nañu bu baax a baax njabootu Thierno Mountaga jaaxle woon nañu trop trop trop ndax jàkk ji état bi ni mu demee demoon na ba commencé di daanu ñu jaaxle trop bi kilifa gi demee seeti président Macky président ak yéenam bu rëy. ne nañ ko raser yëpp reprendre ko bi ñu ko waxee ñun suñu xel jaxasoo woon na trop waaw lu toll ni liggéey bu toll nii ba ak fi mu egg suñu xel mooy nañ ko defaraat jagal ko mu kii mais alhamdulilahi rabbil alamin ñun ñi dem julli ji foofu tey ji suñu xel dal na daal li xam ne président dige woon na ko def na ko bu mu mot sëkk donc nag képp koo xam ne teral na la Euh, suñu waajur bu baax bi Thierno Mountaga danaan nit bu la teralee rek moom na la donc nag euh, euh, président moom moom moo ñu moom macha allah ndax teraanga bi mu ñu defal kenn du ko fàtte njabootu Thierno Mountaga kenn du ko fàtte di ko ñaanal tamit yàlla may ko sagoom élection bi ngeen ci bëgg tamit yëpp yàlla defal leen ko mu nekk tamit intére Sénégal yëpp ndax ñun tamit amuñu lu dul Sénégal ñun njabootu ci yaru Alaji Seydou Nourou Tall moo ñu yar. Alaaji Seydou Nour Tall day wax toujours ki euh, euh, sëriñ dafa war a ànd ak toujours ak nguur waaw nguur bu mënta ñëw tamit sëriñ dafa war a ànd ak nguur donc ñun nag tamit rëccuwuñu li ñu ànd ak président Macky Sall di ko ñaanal tamit yàlla may ko sagom li mu bëgg ci réew mi yëpp yàlla mottali ko élection bi tamit li ngeen ci bëgg yàlla mottali leen ko ngeen am ci majorité ndax moom it mu mën a eggali liggéeyam ni mu ko bëggee ndax euh, ci fukki at yi mu def macha allah eh, réew mi soppeeku na kuy wax dëgg rek xam ne réew mi soppeeku na jig na Sénégal ci domaine yëpp macha allah ñu sante ko yàlla bu baax bañ a guddal wax ji eh, di leen tatagal rek seen kër yéen ñëpp ku ci nekk rek yow madame le premier ministre mënoon nga ñëw teeru gan gi puisque ci kër gi nga bokk waaye ci njabootu ji Seydou Nourou nga bokk eh, noonu la tamit monsieur le ministre Amadou Amadou Ba muy noonu tamit monsieur le ministre Alioune Ndoye noonu la tamit ci Bamba nga xam ne fii la dëkk ci Ngaraf waxuma laa nangeen ànd ak suñu rakk ji Thierno Habib nga xam ne moom it këram la leen mënoon na la mënoon na bis bis bismillah leen yéen ñëpp macha allah euh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant. doon na leen nuyu yéen ñëpp. nee na rakkam yu baax yi lu ñu waxoon li ñu fi wax rek doy na. nee na comme délégation bi ñëw na. nee na kenn kenn si ñoom rek mënoon na wax. nee li lim di lim ay tur le lim ay tur yu si teranga la rek mm, beltinima on nee na bëgg na si yéen bu baax jetti on fuɗɗorade on campagne nee na bëgg na li ngeen seen campagne kër gi mm-hmm. monsieur le ministre na yaakaar. nee na dañoo ñëw wut am am yaakaar. ak ak sàkku ñaan. buur ko ku dund moom si yaakaar rek lay dox. nee na yaakaar bu jeexee si àdduna. nee na dara desatul. nee na même àllaaxira sax yaakaar ak njort lañ fa am. nee na booy booy yaakaar mbir nag dangay ngay tàllal sa ñaari loxo nga ñaan nee na ki ko yor nga ñaan ko yàlla moo yor lépp nee na ñaan na yàlla nee ñi ngeen fekk fii si bërëb bi tam ñaanal nañ leen yàlla na yàlla nangu ñaan yi yàlla na yàlla nangu ñaan yi nee na yàlla bu yàlla sooyal seeni njor yàlla bu yàlla sooyal seeni njor nee na am na ku si yéen si mbooloo mi ku wax mu ne assemblée nationale bi nee na moom lañ mbiram la ñuy waxtaane moom la ñuy doxal nii nee mun na am assemblée bi président Macky Sall am si gàcce mu bëgg a def doxal mbir assemblée bi ñu bañ ko fa nee na képp ku ne nit ku ne. si si réew. wona président nee na muy président de la république wona ministre walla muy ministre wona pittowo mbedd walla muy kii bale si mbedd mi walla jooɗo jooɗiɗo ne walla ku toog sax di yelwaan nee na képp nit ko si ko si tànn ñoom ñoom ñii ma lim ñëpp ku si nekk ajoom rek lay dox ñi kii ñii ñëpp seen aajo rek la ñuy dox nee na président de la république ajoom mooy mbiru réew mi na réew jëm kanam na réew am am dal nee ministre yi tamit loolu lañuy dox dox nee na ki même kii ñe kii ñaanu si mbedd yi sax loolu la bëgg nee na bu melee nii nag ñeen ñun suñu yitt tey mooy suñu jàkk ji nee na Thierno Macky wax na ko léegi nee na am nañu ay yitt yu bëri alhamdulilah nee na bi aajo yi ñu yor yëpp ak yi ngeen yor yëpp yàlla na si yàlla def teg loxo yàlla faj yàlla faj ajo yi kala bawɗo arde nee na ku munti ñew yaafori mom yaakar na ni tardinta juma ka nee du tardel jakk ji kono waaye aɗa ƴewraade dossier ji nee na ngay xolaat ay dossier wala yow so est ce que ne foti wallude walla fotaani wadde wa wala xol ndax mun ki li war nañ ci japp wala waruñ ci japp tardama wadat nee lolu tardama des ji am hmm. ganjo Macky Sall daña tardement nee na ki bañ Macky Sall am tardement minen ɓuri añde ñoom ñi ñoo gën a bañ Macky Sall am tardement nee na ñun suñu yitte mu ñoom seen yitte mooy jàkk ji ñee ñun ak yéen ñëpp ñoo si bokk yitte nee na bépp jullit bu nekk si dëkk bi jàkk ji sa yitte la nee na sa yitte la war a doon du juma Cheikh Omar bii rek lay wax nee na jullit bu ne yitte mooy jàkk yëpp na baax waaye bii nii ñuy tàmbali Mali di liggéey nee na mu ngi jàkkaarloog Sénégal gi yëpp nee na ñu ngi fii eh, eh, eh, nee gaaw leen ba ndax ma pare ah, nee na ah Macky Sall président Macky Sall nee na nopp leen noppalu leen man dinaa koy yeggali nee na li koy teree jeex li koy tardeel ñun bugguñu ko ne moom na kon nag assemblée bi li ñu bëgg mooy ngeen am si seen sago ngeen am si li ngeen di wut nee na yéen ñii seeni xarkanam kanam nee na ay xar xar kanam yu ñu tàmm la ay xarkanam yu ñu miin la hmm. nee na boo duggee ci lim rek da ngay juum waaye ñii fi toog ñëpp nee na xar kanam yi yëpp ay doomu Cheikh Umar lañ ñoom ñëpp ay sëtu Cheikh Umar lañ nee na ki ñu fi miin ak ki fi miinul ñëpp ay sëtu Cheikh Omar lañ ñëpp ay doomam ay sëtu Cheikh Omar lañ nee na muy jullit alhamdulilah nee muy murit muy tijaan muy laayeen walla mu bañ a nekk si yii mu lim yëpp ñëpp ay doomu ak sëtu Cheikh Omar lañ ñëpp ay sénégalais lañu nee na waaye xam jàmm lañ xam mm. nee na waxtaan la ñu xam diisoo déggoo la ñu xam moom nag loolu nag yàlla nañu ko yàlla defal mm, nee na li ci des nee na tànn la nee na ku si nekk day tànn ni mu bëggee nee na comme nit ki day tànn ni mu bëggee moom it day tànn ni mu tànn tànn ni mu bëggee ñun ñëpp lu baax rek lañ bëgg bu ñu bu ñu jotee yi dañ bëgg lu mooy lu baax réew mi nee na xeex xeju fa xeex xeju fa yàlla nañu yàlla dimbali ñu bañ a réeroo bu ñu réeroowee ni ñu indi ñu doxal suñu xel ñu trouver ay solution ñu liggéey liggéey lu ñuy ji lu ñuy njariñ nee na madame le premier ministre Aminata Touré moom moom mi xam ne moo jiite liste bi nee doomu kër gi la mhm. nee maamam alfa xaasum alfa xaasum soldat si soldat Cheikh Omar yi la Cheikh Omar de woni Nioro Cheikh Omar bu mu sa Mali dem di indi ji ay matériel da eh, maamam moom mii maral premier ministre eh, nee ku si nekk si ñoom ñi mun na wax sa ak Cheikh Omar comme bi mom buñ ko rek yàlla na leen yàlla jàppale jàppale dëkk bi nee na li ñu fi ñaan ak yaakaar bi bi bi leen fi indi nee na yàlla na ko yàlla mottali yàlla na ko yàlla mottali si si jàmm ak salaam ak ak teey ak dal nee na suñu jàkk ji nee na jàkk Bamba Fall mii la jumaa Ali monsieur le ministre Ali Ndoye mii la ndax Medina bu rafetee ñoom ñi ñooy am mu ne compétence nee na seen compétence la. dafa nekk diggante. Plateau Plateau ak Médina ak Médina. donc ñoom ñii seen wàll la. nee na ñun ku si nekk. boo rombee jàkk ji. nee na sa bët dina si kontaan. wala mu wala sa bët bañ nga bañ si kontaan sax. boo si gisul lu baaxul. doo si bég. boo gisee lu baax. nga bég. nee na tey nee na suñu yitte <laughs> nee na yitte jullit ñi mooy suñu jàkk ji nee na ju jàkk nee na tuutiwul si dëkk nee na du du fàtt nañ yeneen mbir yi de xam nañ yeneen mbir yëpp ab mu ngi fi xam nañu yitte Macky Sall si si mbir bi yeneen mbir yëpp eh, nee na loolu Sénégal sénégalais bu ne wala même ku dul sénégalais gis na nee na gis nga xar kanamu dëkk bi xar kanamu dëkk bi nee na mu ngi soppeeku bu baax nee na xar ka mu dëkk dëkk bi yëpp mu ngi soppeeku ku ko gis fekkente ne am nga ngay ngay xalaat nee na di nga si bëgg nee na du lii du lii du lii dafa bëri nee boo ne da ngay lim rek dina ah, ah, am loo fàtte loo bàyyi nee na lépp baax na nee na lu ñu bëgg a def ci ginnaaw loolu itam loolu itam moo gën a am yitte sax yàlla na leen yàlla jàppale ah. ba ñu ba ñu def loolu nee na si njiitu président Macky Sall yàlla na leen yàlla may ñu fekkee déwén yu bëri nee na yaakaar adduna bi nee na yaakaar bi leen fi indi nee na yàlla bu yàlla sooyal loolu yàlla bu yàlla tas yaakaar nee na nuyu nañ leen yéen ñëpp nuyu nañ leen yéen ñëpp nee na ministre yi fi teew madame le premier ministre nee na muy député euh, nee na muy fonctionnaire directeur nee na kuy dem sax di ñëw ndax fekk fekke rek nee na ku mel ni ñun rek ku si amul benn yitte sax ñëw rek fekke ñëpp nuyu nañ leen ñee na nuyu nañ suñu mbokk jigéen ñi alhamdulilah nuyu nañ leen bu baax alhamdulilah nee na aduna góor ak jigéen ñoo ko sekk góor ak jigéen ñoo sekk aduna yàlla na leen yàlla jàppale nee na lii bu booloowee rek lépp dina baax yàlla na yàlla bu baaxal ñu mbir yëpp nee na yéen jërë ngeen jëf nee na ñu ngi tàmb tàmbali ngeen bismillahi rahmaani rahim yàlla na ngeen jeexal si alhamdulilahi rabbil alamin nee na si turu Thierno Basir ak turu waa kër Cheikh Omar yëpp bëgg nañ si yéen yàlla na leen yàlla bégal jërë ngeen jëf jërë ngeen salaatu fatiha